على النور من نور ينورنا مام بلسوك جرل موي جارة الله نور على النور الحاج فضل ينورنا الحاج فضل مام أو بلسوك جرل موي جارة فالنور على النور ينورنا نعم بسوك جر موي جارة الله على النور الحاج فضل الحاج فضل مام أبو بسوك جر موي جارة الله على النور من نور ينورنا مام بسوك جر موي جارة الله نور على النور الحاج فضل الحاج فضل مام أو بسوك جر موي جارة الله سنفل نيجاد إبايم سنو أسكن بايم دنايم billaay fallu ndey jaadi baay mu di baayam seen baayam di ndeyam baayam di ndeyam dallu baay timba ak saay sa billaay si fallu ndaw leer ci kaw leer ala rak soxna awa soso jaarama jaar leer yoos këli sunu moom jaare tullaay ndaw leer ci kaw leer ak soxna Buso sosoo askan sunu leer gaa nga jolle dunya wa uxra na jaara jumaay Seex Bamba duutul am ci réewi wolof kul ci réewi arab ngir jaareetul laay Bamba duutul am ci réewi wolof duutul am ci réewi arab ngir jaareetul laay sunu sorori Makka

am na Tuuba am na Tuuba Tuubaa su am na am na Tuubaa mam Samba Mariam la mu wax kenn dootu ko wax am na li man jaala doon way wa billaay mam Samba Mariam la mu wax kenn kenn kenn dootu ko wax am doon li man jaala doon way wa billaay mooy maami Aminatul la way way wilatay sët yàgg naa niru maamam jaaratu laay mooy maami aminati aminati way way sët yàgg naa niru maamam jaaratu laay man jara ummul xadimir jaara maam jaara bu sol semal jaaratu jaara ummul xadimir rasulillahi jannatu maam jaara buso nu fi jaara tula maam sari basiru jaara buso nu semal jaara tulaay ku loxo màgg soxna jaara yàlla nga fekke déwén loxo ca kaw ñu màgg soxna jaara maam sari basiru maam jaara buso nu semal jaara tulaay maam jaara buso soxna jaara maam Ibrahima diinu maam jaara bu sooru sembal jaara tullaay maam jaara bu sooru soxna jaara maam Ibrahima diinu maam jaara bu sooru sembal jaara tullaay maam jaara bu sooru soxna jaara maam Ibrahima diinu maam jaara bu sooru sembal jaara tullaay maam jaara buso nu seex maam jaara buso murid yi dem leen siyaare ji bu baax dem siyaare ji dem siyaare ji sunu maam jaaratullaay waaw ma ni mbooloo mi ku bëgg siyaara ji maam jaara nga yëkkati sa ñaari loxo ca kaw màggal soxna jaara ku ko def yàlla nga gudd fan ay ca leen di dem leen siyaare ji ba dem siyaare ji dem siyaare ji sunu maam siyaare ji Tuuba dem ji laal dem siyaare ji sunu jaara mam jaara tibbel ma ndab lu rëy lu rëy loo xam ni ñépp a ci xaj yokkal moolaami ak seen man jaaratul bel ma ndab lu rëy loo xam ni ñëpp a ci xaj jaarama jaara kon moom moo laame ak seen booli lilaay ndab lu rëy loo xam ni ñëpp a ci xaj yokkal moo laame ak seen booli lilaay mariamatul bel ma ndab lu rëy loo xam ni ñëpp a ci xaj أجزال بالي لله تبال ما نبلو نبلو لا خمي نبتي خدي أكل بالي مريم تبال ما نبلو ري لا خمي نبتي خد جارة مجارة أكل ممولو أجزال بالي لله jëbbal ma naglu maami Sëriñ Basiru maami Sëriñ Muntaxa maami Sëriñ Mbàkke Saxlu Mariama tibbal ma ndab lu rëy loo xam ne ñëpp ci xaj jaarama jaar kon mu mbooloo mi ak seen bool mbooloo mi ku bëgg a dem Poroxaan lambalaat di soxna jaara ñoo jox ko Sëriñ Seexuna ku ko jox addi soxna jaara yàlla nga dem boroxaan ñëw leen jox addi soxna jar na jaara na mucc noog nan aaru noog lu nu am an se lu noog lu nu am maam nu am noog lu nu am yama na muccu noog munu am ñun nan aaru noog munu am selu noog munu am mam jaaratula nan muccu noog lunu noog munu aaru noog munu Maryam nun muccu noot lu nu am nu am se lu nu aar lu nu nu am lu nu aaru إسرت الله يا دلوة تمت الله من جارت الله يا دلو آمنة مريم يا دلو مريم بسو دلو فاطمة الله من جارت الله من جار يا دلو آمنة يا دلو إسرت الله يا دلوة fatimatullah mam jaaretullah ya dollu amilan mam bu sabali mam bu sabali don ali badel mam jaaretullah mam jaara ya boole ay ndam ci biir jaara biti ya mataridi xel samar faw jërëjëf jaaretullah jërëjëf jërëjëf jërëjëf daara moom jara ñaari féetu bu juddu yaa discours ta ami may barkeel nga sali cosaan mam jaare tullaay yow yaa discours ami may barkeel yaar yaa tabe am tiitur tuddi su la xaas dootoon tële su la taan jàmbur nga dillaay yaa tabe am tiitur bu sobaale tële su la xaas dootoon tële su la taan jàmbur nga dillaay jara yaa dudd duniyaa ji yow yaa dudd duniyaa ji bu soo yaa dudd duniyaa ji abadan duñu alal yaa sawar bay rooti billaay yaa dëddu duniyaa si daawoo xëy adal doon alal yaa sawar bay rooti nga lewet yaatu am ngor am teraanga ju maat xam yàlla xam ila jaajëf jaaratu laay lewet jaara mun kat nga mun kat nga doo mer yow sawar téléphone ndax la nga maa ma jaara tullaay maam jaara mun kat nga yow mun kat nga doo mer yow yow doo mer yow tax ci sagu dogo jaara sag liggéey mu reyata ci sag dogo am jaara maam bu sobaali yaa waral ku ney sab liggéey bu rëy a tax ci sa gundogo maam bu sa baali yaa waral ku ney sa go maam jaara sab liggéey bu rëy a tax ci sa jaara baru paroxaan maam bu sa baali yaa waral ku ney sa go te sab liggéey ibra ya tax gi sag dogo poroxaan keroog ba ngay sonn di jaamu ak a jëf maam jaara liggéey topp ndigal ba dëgg jërëjëf jaara maam bu sa baali yaa waral bu sa goor maam jaara sab liggéey bu raya tax gis jaara borom poroxaan keroog sol di jaam ak jëf maam jaara liggéey ak ay topp ndigal ba dégg jërëjëf maam bu sabali yaa wara ku ngay sagoo maam jaara sab liggéey bu rayata jaara borom poroxaan booba nga raw booba nga man booba nga suwa maam jaara ko bañ a jiitu ñëpp kenn dootu la jota booba nga raw booba nga raw booba nga sura booba nga jiitu ñëpp kenn dootu la ñaaram borom baraxaan booba nga raw booba nga man booba nga sura ñaaram booba nga jiitu ñëpp kenn dootu la jota bomba garaaw bomba jaara dex ga dangay setal di nandal di ñoral jugu soobu napp yit barik ndawala dangay nandal nandal di ñoral jamaa dex nga dangay setal di nandal di ñëral di ñëral bu ko soobul nopp yët barik ndawal ngay setal ngay setal nandal di ñëral nandal di ñëral bu ko soobul nopp yët barik ndawal jërëjëf jërëjëf ne waaw kay jërëjëf sëriñ Bachir Bousso yàlla na fi yàgg téer jërëjëf waaw